bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi nga xam ne noo bokk liggéey bi a Mouhamadou Bachir mii nga xam ne mooy yor baatu jottali ak sëñ sëñ Mouhamad loo nga xam ne moom lañ dénkoon wattuk dëkk bi ñu ngi nii teew wax ji nag dafa war waaye ku booy wax wax ji am wax bi daani wax waxu lislaam waxtu wane noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi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 wax na musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi ni seen borom wam mën leen jëmale seen borom bind na it ba fi loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag gannaaw dogalu sa borom moo xam la muy dogal yoonu kenn nekku ci moo xam li li li li li war a def moo xam nam koy defee moo xam li tax mu di ko def loolu lépp mu ngi ci yàlla amma jaam ñi nag xam ne dañoo top la lislaam digle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 ne ci lu la neex ah jullit bu ko def ak sa borom taalib bi Sëñ bu ko def yaag yaa yaa yaa ba tey yaag sa borom ndax sëriñ bi mosut a juyoo ak boromam réeruwul la borom bëgg rek la borom digle rek moom la digle la borom bëgg moom la digle. la borom tere moom la tere la borom bëgg la borom bañ moom loolu leer nañ am ma yàqute nag loolu mosu fee jóg yàqute mosu fee jóg te ki ko yàqu li ci ëpp li ci gën a bare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 sëñ Béthio dëgg la ci lislaam la juddu ci ñooñu Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi mu jox boppam sëñ saa kon waxoon naa ko njaboot gi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 waaw ah, loolu rek moo ci moo ci moo ci war ci seen bi rek lu bon nag seen bi rek lu bon moom seen bi rek ku teggi ndigalal yàlla teggi ndigalal sëñ Tuubaa wàcc fa bëggu su bëggu suñu borom gi wàcc fa bëggu bi gi ñun su xamatuñ ci yow dara kon nanu góorgóorlu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 bëgg leen woo ma jëme leen seen seen seen borom ce loolu rek la ma sa nekk waaye ci loxo yi loxo loxo tubaab yi daan lañ nekk la nekkoon kenn yàqulu ci sa morom daa ñee ña nga ci lañ lañ doon def ba léegi moom it mu ngi ci lam nekkoon ba léegi kon euh, daal soppiku fi ah ñu jàdd yoon wa fétal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 kon bu yàgg ba ma tàmbalee di laabiré euh, lam ma daa wax rek nan góorgóorlu ci njub ndax njub mooy buntub lépp lu baax njub mooy buntub lépp lu baax boo jubee xam sa diine yomb la jëfe sa boo jubul dara lu baax doo yomb waxuma laa waxuma